professeur Souleymane Keita ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen fay. yow ngay euh, économiste euh, laaj bu njëkk bi ca conseil des ministre examiné nañ adopté nañ projet de loi de finance ñeel atum deux mille vingt trois mu doon ab yokkute boo ko méngaleeg atum mille vingt deux lan nga jàpp ni moo tax ñu yokk budget bi. tontu sa sa question bi dañu war xam ne euh, actuellement depuis deux mille dix neuf deux mille vingt Sénégal ak beneen pays africain yi en fait pays mondial yi ñu traversé ñetti crise yoo xam ne ñu am impact négatif sur économie bi. Mm-hmm. première crise bi crise Covid bi la. Covid bi peut pratiquement jeex na mais conséquence bi lay léegi léegi jeexul. Mm-hmm. première crise bi deuxième crise bi moo tamit c'est crise ukrainienne yi. dangeen war a xam ne ne soixante dix pour cent yoo xam ne ni ñuy consommé suñu dëkk bi ñu importé nañu oko importation bi la majeure partie yoo xam ne mu ngi jógee ci Ukraine ak Russie yi maintenant am nañ problème donc par conséquent problème bi muy am conséquence ci suñu économie bi donc lu tax état bi muy war a xool naka lañu war a def yoo xam ne couche vulnérable bi population yi yoo xam ne amul emploi amul dara naka lañu fexe yoo xam ne pour ñu dimbale ñoom donc par conséquent pour ñu budget yu yokk pour faire face à cette nouvelle demande là mmh. euh, tey euh, yokkute boobu lan la mën a indi euh, ci koomu Sénégal ndax tollu na ci lu ëpp neuf milliards oui en fait loolu laa lay expliquer nii c'est-à-dire qu'aujourd'hui fondamentalement état première responsabilité état bi du fekk que bi am na amul ñuy war a lekk amul ñuy war a naan pour ñu ñëw pour en en appoint bu Maintenant, vous ñu def affaire euh, disons cette contribution la parce que dëkk bi moo laaj lool parce que boo deful loolu couche de vulnérabilité bi mu ngi war a yokk tension sociale bi muy ngi war a yokk donc maintenant pour apaiser cette tension sociale yi pour que population bi mu ngi war par exemple génn ñeneen affaires yi benn la maintenant aussi boo boo xoolee actuellement facture euh, mondiale bi muy commencé yokk pétrole bi muy yokku doomu euh, képp bi muy yokk huile bi muy yokk maintenant état pour ne pas appliquer la vérité des prix muy obligé nest mu subventionné affaire bi yëpp lu tax budget bi muy war yokk. Mhm. Euh, tey gis nañ budget bi yokk na ba egg na six mille quatre cent milliards de francs CFA. est-ce mhm. que budget bi nga xam ne tey yokk na ko mën na impacter ci dund bu cher bi fii ci senegal voilà en fait budget bi c'est normal na. maintenant li mu am am solo e est l'utilisation yoo xam ne état bi muy war a def Jokalante parce que budget bi pour Jokalante loolu ça c'est le normal depuis mille neuf cent soixante ba léegi chaque année budget muy yokk rek maintenant ça sa ça c'est classique maintenant problème bi maintenant c'est quoi l'augmentation budget bi naka la ñu def naka la quels le les secteurs yoo xam ne priorités yoo xam ne état bi muy war a dugg xaalis boobu loolu mooy war a am importance maintenant yokkutee budget bi loolu c'est normal maintenant six mille quatre cent et quelques milliards bu budget bi naka la état bi mu war a def quelle politique priorité bi fan la état bi mu war a def hmm. maintenant état bi actuellement il faut pas oublier également que le taux d'endettement également mu ngi commencé yokk nous sommes aujourd'hui on a dépassé la barre fixée par l'UEMOA mu ngi nekk soixante dix pour cent ñu hmm. nekk à peu près aujourd'hui soixante quinze pour cent yoo hmm. xam ne statistique bi li ñu naka l'état bi investissement bi euh, euh, xaalis bi fa war a dugg yoo xam ne rendre la vie moins chère à la population est-ce que muy war a jël xaalis bi jox gratuitement est-ce que muy war a investissement pour que population bi peu de temps dina ñu génne effectivement cette zone de pauvreté euh, gis nañu prévision yi chaque année day yokku budget day gën di yokku at bu jot Euh, lan moo tax euh, Sénégal mënul euh, mucc ci ay njëg yu cher ak conjoncture internationale bi. oui loolu laa la wax parce que en fait yoo xam ne exactement bu yokk war a xam ne en fait population yi war a xam benn affaire budget yokkute budget bi la la plus que bonne partie yoo xam ne muy dem ci bitim réew mi bi yokkute budget bi. desul économie bi. parce que ni ñuy consommer ñu du loolu mooy problème suñu économie bi ñu ñu am économie mu ngi wax économie extravertie c'est-à-dire économie extravertie mooy lan cest à que li nga consommer du yow nga produire il fait que loolu la donc li nga consommer muy war a génn euh, dugg en fait importer ci benn dëkk maintenant xaalis bi li nga am li nga war a jox mais maintenant loolu quel que soit alpha. n'importe quelle perturbation extérieure muy am impact ci yoon. Euh, professeur budget euh, ci yan fànn euh, naka lañ koy réaliser nu ñuy def ba taxawal budget budget bi fu ñu taxawal cest dire que budget boo waxee budget somme la yoo xam ne l'ensemble des ministères yoo du Sénégal am c'est-à-dire que le Sénégal am na yeneen tous les ministères yoo xam ne ñu war a expression de besoin naka la ñu war a def en terme d' investissement naka la ñu war a def en terme de dépense ok. Mm. ku nekk muy wax li nga war a def après maintenant ñu consolider ko en conseil des ministres. Mm. ñu xam li nga war a def lii la lii la lii la lii la. Mm. ak argument bi loolu la ñuy arrêté. bu ñu arrêté lool loolu la ñu war a présenter effectivement au niveau de la euh, de l' assemblée nationale pour ñu autoriser ko parce que euh, xalaat gouvernement bi ko député yi ñu euh, autorisé pour que budget bi muy war a nekk en exécution loolu mooy économie pays euh, du adduna loolu la ñuy fonctionner cest à état bi mu ne dëkk bi voilà lan la ma war a prévoir maintenant du du budget ministère de finance que c'est l'ensemble des ministères yoo xam ne Sénégal am loolu la ñuy jël chacun donc li mu war a def comme budget prévision bi programme ministère yi la ñuy xool pour tënk budget bi exactement donc loolu la ñuy jël comme budget global ñu consolider ko ñu regrouper ko yëpp loolu mooy waa budget Sénégal. Mmh. d'accord euh, professeur tey euh, DGID euh, direction général des impôts. Euh, mmh. génne na ab rapport nee na ci population active bu toll ci six million fii ci Sénégal euh, mmh. lu gën a néew un million yi kese ñooy fay impo ana lan moo ko waral ak genn conséquence la mën a am ci suñu koom. waaw loolu loolu réalité la depuis. daaw ñuy wax Sénégal 16 millions d' la boo xoolee 16 million d' habitants ñu ne ko population active bi 1 million la muy fay impôt mais ça c' est grave mais loolu est tout étonné ñun économiste bi parce que depuis daaw ñun wax nañ ko que le secteur informel muy am muy représente aujourd'hui 70 pour cent du PIB loolu dafa grave c'est-à-dire aujourd'hui boo xoolee PIB du Sénégal budget du boo xoolee six mille quatre cent et quelques milliards au moins secteur informel représenté na au minimum quatre mille milliards loolu mooy échappé n'est-ce pas qui état pour paiement d'impôt quatre mille et quelques milliards donc loolu tax maintenant état bi am na responsabilité aujourd'hui réformer l'économie bi formaliser économie bi pour ne pas que secteur informel bi muy bari économie bi donc ça veut dire que c'est des manques à gagner énormes que l'État mu ñu war a am pour faire face aux besoins n'est-ce pas de la population. Euh, kan moo war a fay exactement impôt. impôt bi ku nekk euh, impôt bi ñuy wax tubaab contribution obligatoire payée par voie d'autorité c'est-à-dire qu'aujourd'hui ku nekk boo amee xaalis wala ku nekk bu nga war a créer ci valeur bi yow nga am cinq cent payer impôt bi parce que impôt bi boo bëgg am tali bu baax. boo bugg am éclairage bu baax boo bugg am sécurité bu baax pour nga fay sa impôt bi parce que xaalis impôt bi l'état boo jël pour fay euh, pour fay euh, yëpp donc maintenant boo amee activité boo amee création de valeur yow yaay assujetti paiement d'impôt. d'accord euh, tey ñu bëri ñu ngi wax exonération fiscale euh, lan mooy exonération fiscale ak naka la mënee gàllankoor suñu koom. voilà exonération fiscale loolu la ñu wax exactement c'est-à-dire aujourd'hui nit ñuy war mm-hmm. uh, a fay impôt ñu ne la bu bul fay impôt wala loolu c'est facile. am na société yoo xam ne ñuy jël def peut-être chiffre d'affaires deux cent trois cent milliards ñuy war a fay peut-être vingt trente milliards ñu uh, ne exonéré la impôt loolu xoolal manque à gagner bi du pas énorme maintenant justement aujourd'hui député yi ñu war a xam seen rôle parce que euh, am na rôle yoo xam ne depuis réforme de deux mille deux deux mille vingt deux deux mille vingt ñoo xam ne ñuy wax évaluation des politiques publiques député yi ñu war a évaluer état bi mu war a am na dans les prérogatives effectivement bu ñu xool kan entreprise yoo xam war a bénéficier exonération kan moom war a lu bénéficier wu maintenant bénéfice yi woon pour ñu waa ñu déposer dossier bi devant les députés ñu xool ñu seet est que gain bi am na cinq cent pour mille pour ne pas que am manque a comme ñu am léegi que mm-hmm. après ces famille mm-hmm. euh, kon yan yan entreprise ñoo war a bénéficier wu ci exonération fiscale bu dee am na. foog nga am raison ñu justifier ci yoon actuellement boo fayee impôt bi muy am gàllankoor pour sa entreprise. d'accord yokk maintenant boo amee loolu nga nga déposé ci au niveau de député au niveau de ministre. Mm-hmm. ñu xool ñu seet naka la nga war def pour ne parce que nga fay impôt en fait il faut comprendre exonération fiscale c'est légal mais il i que ñu jaar ci yoon bi pour xam ne kan moo war a bénéficier woo kan moo war a bénéficier mm-hmm. pour ne pas que ça soit seulement nit yoo xam ne ñu accordé exonération ci mais nag dans la politique publique yoo xam ne war naa la tànk ñaar crise yi crise Covid yi ak crise Ukraine yi mu perturbé la fonctionnement beaucoup d'entreprises maintenant pour ñu bàyyi am problème ñu war a xool maintenant ban entreprise yoo xam ne mu ñu war a bénéficier ñan condition la mu ñu war bénéficier. Mhm. Euh, redressement fiscal nag euh, mooy lan. voilà redressement fiscal mooy yoo xam ne yi war fay impôt par exemple am nga yaa ngi war fay impôt nga def fausse déclaration bi par exemple parce que impôt yi ni c'est yoo xam ne yow war xam. man dama def par exemple tel bénéfice cinquante milliards yow li nga war a déclarer yow yi nga def cinquante milliards wala nga war cinquante milliards la def comme bénéfice nga maj nga minoré nga a ah vingt dix milliards laay def. Hmm. yaa ngi dégg maintenant direction impôt bi mu xool yo li nga war a fay yow fayoo ko maintenant ñu def la redressement fiscal maintenant. loolu la ñuy wax redressement parce que déclaration fiscale nga wax. Hmm. méngoowul li nga li nga am li nga war a fay mhm. sàcc la de. voilà sàcc la rek boo moo tax c'est-à-dire déclaration bi li nga def nga def méngoowul li sa activité. d'accord dañ lay amoon. exactement. d'accord euh, laaj bu mujj bi euh, professeur tey euh, suñuy njiit ñu bari ñoom dañuy préférer entreprise étrangère yi te loolu mën nañu gàllankoor naka la ñu mën a gàllankoore suñu koom. voilà entreprise étrangère bu benn bénéficier loolu la la en fait entreprise étrangère yi boo def bu mu amee xaalis moom am na garantie yoo xam ne mu rapatrier bénéfice mais entreprise locale yi bu muy des bi maintenant muy contribuer au développement du pays loolu mooy différence. Mmh. d' accord euh, professeur Souleymane euh, ñu ngi lay sant di la gërëm. merci merci man maa waaw di fàttali yow euh, économiste